foofu nag laa bëgg a ñëwee peut-être xam naa on est vers la fin mais euh, mbébét bi ngeen am mhm. ngeen nekk ci milieu boo xam ne dafa non seulement informel na mhm. seeni seeni ndaw kenn tàggatu leen mhm. euh, bëri fu fu neexwaay fël la ñëw dugg dugg ci secteur bi tey nga ne da ngeen di ñëw exiger loolu yëpp seeni employeur euh, ñu nekk foo xam ne fi ngay laajee sans Mhm. keneen mu ngi fay xaar koo xam ne cinquante boo ko ko joxee mu ñëw. Mhm. est-ce que c'est pas perdu d'avance c'est cette bataille là. waaw ah, merci foofu moom dama si sawar pour tontu xam nga lu hmm. fi nga laajee cent kenn def laaj cinquante mooy cinquante ki kay laaj kooku jàngul métier. waaw mais si fait mon affaire je m'en bu bu fekkee mën na. léegi nag léegi nag léegi nag je m'en fous boobu lañ bëgg mu jógee fi xam nga lu tax lañ bëgg mu jógee fi da ngay gis da ngay gis benn benn jeune. yor otoom di dem si àll bi. Mhm. patron boole ko ak benn xale bi ànd ak moom àndut ak moom pour dafa bëgg a jàng métier non dafa ànd ak moom pour xool tali bi nu mu demee pour suba suba bu taxee ko fi utal booy bi permis jox ko oto bi. kooku génn si àll bi mais kooku noonu mais kooku noonu du chauffeur kooku su jëlee oto bi ànd ak ñi mu yab xamul xew si àdduna bi kooku du chauffeur chauffeur bu jàng métier am am am diplôme am si poosam non du non kooku kenn ko utiliser.